depuis depuis mois de novembre soo ñëwee soo ñëwee fii ay deux deux coups trois coups da ngay yeewu huit nga ñëw fii prof yi def coup prof yi duñu def coup te loolu mit na mit boo xam ne neexu soxam parce que ñun dañu dañu poote ne nekk ay élèves soo pootoo nekk ay élèves da ngay ñëw sakku xam-xam soo ñëwee pour sakku xam-xam da nga ñëw sa école pour jàng te depuis mois de novembre léegi ñun ay deux coups trois ngay def alors que si ñun ñi am na ñu fi nekk ay élèves terminale ak élèves troisième comme exemple su ma jëlee sama cas Je suis TS2 au niveau de au niveau du programme histoire nous sommes qui interdiction nous sommes au mois de janvier au mois de janvier nous nga interdiction site. déjà Nous une Nous grève ñu une grève grève une grève. Nous avons day am une Nous avons examen. ins bi nag ñun suñu daje mooy que dañu ñaan autorité yi parce que suñuy papa ak suñu yaay kenn ñoo fa nekk suñuy papa ak suñu suñu yaay dañu dañu yeewu ay 6 heures du matin di dem di dem liggéey pour ñëw inscrire ñu puisque ñoom def nañu effort boobu ñun dañu def effort pour jàng mais puisque dañu ñaan président Macky Sall moom mu jéem a trouver solution ak profit que ins bi sonn nañu trop te encore mooy que beneen kii ni beneen affaire bu mooy que ñun ngir la dañuy di ñaan nañu wàññi suñu programme bi programme programme Sénégal kii nii programme Sénégal nañ ko wàññi programme Sénégal na programme Sénégal encore une fois une troisième fois programme Sénégal na